asalaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média 13h benn waxtu sënkam ci suñu antenne dalee nag jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a dina bokk ci li ministère de la santé di xëy di yeggee askan wi bés bu yàlla sàkk jàppale ne lu tollook ñetti doomi aadama daal nañuy yokk ci limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen kenn ci li nga xam ne moom moo di euh, mbas mi waaye itam téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci ay cas positif la ñu am niki tey téeméer fukk ak juróom eh, ñeent nag ci ñoom di ay cas contact di ngeen ci dégg eh, ki nga xam ne moom moo di docteur Aloyse Waly Diouf moom moom moomee nag ngeen di gis tey mooy nekk kàddoom yu njëkk yoo xamante ni dina ko yëkkatee ca ministère de la santé ndax daal nay teggi ay ndombal tànkam ngir fa yéenee dem eh, foofee nga xam ne moom moo di ca OMS nag di ngeen dégg itam ay kàddoom dégg itam kàddu ki nga xam ne rek moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr ci rek li mu wax ci njàmbaaram bi mu ministère ba moom docteur Aliou Zouary Diouf ki ko wutu nag di Alphonse Thiaw daañu wax ci leneen di coowal suuf foofee nga xam ne moom moo di ca Mala nekk ca ab village boo xamante ni mu nga ca commune bu euh, Soyer nekk ca arrondissement bu Kër Momar Sarr foofee nag askan waa mer ba la ñu def daa dégg ki am ki nga xam ne rek moom moo di jiit bu bokk euh, moomeel bi ab ndell woo xamante ni daal nañ koy gis nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gis nag di askan waa laata ñi nga xam ne ñoom ñoo di way euh, takk der ya nag ci ab piste boo xamante ni ma nga nekk ca ab carrière woo xamante ma nga nekk ca ca Bandina Mankagne daañ ci dikk ni mu euh, gën a yaatoo ñi nga xam ne itam ñu ngi euh, saytu wàllu wuri mel daal nañ yëkkati ay kàddu toftal ci li nga xam ne rek moom la yéen kaay yi xëyee ni ji ci àjjuma ji nees kiis ma dikk ñu yaatal salaamaaleykum Média ñu nuyuwaat leen ci gën di nuyu rafetlu bi ànd bi ak ñun ñetti doomi aadama ñoom ñoo dolleeku ci limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci mbas mi waaye itam euh, téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ci ñoom nag di ay cas euh, positif téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett di ay cas contact ñu teewlu docteur Aloyse Waly Diouf moom moo yoroon kàddu bés bi. junni ak juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom-ñaar test yi ñu def. téeméer benn ci benn tali benn ci Médina benn ci yoof benn ci Xombol benn ci Mbuur benn ci Mexe benn ci Caajaay ak ñett ci Touba juróom ñaar fukk ak ñaar ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak juróom-ñaari malade ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñetti malaat ci bésu démb jeudi 19 juin 2020 ñàkk nañ seen bakkan ci suñu structure de santé yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaale seeni njaboot ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dalee ci kaa bu njëkk ba wañu nañu fii ci Sénégal juróomi junni ak juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti cas yu positif ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk wër nañu si juróom ñàkk ci seen bakkan mu des junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk benn ci suñu structure de santé yi ñu leen di traité kaddu googu bu ngeen ko déggatee xanaa ca euh, OMS la waaye nekkatul ci ministère de la santé tekki na fa ndombol tànkam euh, moom mi nekkoon bëkk nekk di directeur de cabinet bu ministère de la santé. moom docteur Aloyse Waly Diouf moom moo ngeen doon gis nag daal nay teggee ay ndombal tànkam ca ministère de la santé fa seen dëkkmal fi nga xam ne rek moom moo di OMS lu ni mel nag buggoon na ko amal ca mois bu mars waaye itam li nga xam ne moom moo di mbas mi moom moo ca post bi nga xam ne rek dénkoon nañu ko ko dañuy teewlu ay kàddoo moom docteur Aloyse Waly Diouf mu ngi ko yëkkatee ci suñu naataango ya nekk ci RFM. waaw OMS ñu bàyyi ma fi ndax xam ngeen ne ci boobu la pandémie bi doon door donc il fallait que ma des sama poste continuer liggéey pour Sénégal continuer liggéey pour ñu xeex coronavirus te defe naa loolu ci wàllum engagement kenn mënul woon xalaat ne am naa ay engagement yoo xam ne dama ko différé léegi nag délai euh, bi dafa jot rek bi ma toogee waxtaan si ak ki nga xam mooy sama kilifa vraiment ma gis si moom générosité gis si moom aussi nit ku sàmm personnel am moo tax bi ñu waxtaanee mu nangul ma ma mun a dem feneen mais nangu bi mu boole ci ay ñaan ñaana ma te defe naa loolu ci diggante nit ak nit loolu lu may rafetul. kon daal du dañ laa dàq. amul benn jafe-jafe bu am sa digganteeg jëwriñ ji. jafe-jafe wala ñu dàq ma defe naa loolu aussi du lu am buñ ma dàqoon xëy na tey sax du ma xëy di def communiqué et suba dinaa toogaat di liggéeyaat ci ministère de la santé li ci am comme ni ma ko waxee mooy am na poste boo xam ne dama fa waroon dem depuis le mois de mars app bi nag moo jot vraiment bi mu jotee. dem naa waxtaan ak ki nga xam mooy sama ministre de la santé mu won ma ne moom mu may gërëm ci li ma def mais aussi mu ngi may encouragé ci yoon bi nga xam ne yoon bopp laa jël ñu ngi koy encouragé ci yoon wi nga xam ne moom la fas yéene euh, dëkkmal moom Abdoulaye Diouf saar daal di yëkkati ay kàddu daal di koy euh, posté euh, ci li nga xam ne moom moo di page bu gëm gis ngeen ko noonu di xam ne itam xelam dal na bu baax a baax ci docteur Aloyse Waly Diouf tey xam ne itam li nga xam ne rek fas yéene ko wëyal nag am nañ ci as xel mu dal ndax itam ab fierté dong rek lay gis ci moom naka noonu itam muy xam le ne moom Abdoulaye Diouf saar du ko bàyyi benn yoon saa yu nga xam ne rek euh, la ko euh, soxlaa. moom docteur Aloyse Waly Diouf nag ki nga xam ne moom moo ko wutu nag ci directeur bu cabinet bu jëwriñ bi nag di euh, Alphonse caw daañu dikk itam fexe leen nuñ leen xamale ak jëm ji nga xam ne rek moom ngeen di gis ci li nga xam ne moom moo di écran bi. mbokk yi ñu wax ci leneen mu dip ñàkkub ndox ci yenn ci ay daara yoo xamante ni ñu nga nekk ca département bu Médina Yoro Foulah foofee nag askan wa fa yeewoo nag li ñuy sàkk moom moo di ndox doon na loo xamante ni nag kenn mënu koo ñàkk ci jamono yi nga xam ne ñu ngi wax ndaw yi def nekk ci classe d'examen nag war nañoo dellu ci li nga xam ne rek moom moo di saal yi ñu teelu reportage bu Abdoulaye Diallo. fii nag ci bépp ci ay bunt ñu di ko surveiller laataa kenn di dugg da raxasu ba set ci baignoire robine nag yi ñu teg fu ci demee ni ki ci entrée principale bi ak njàngale mi ca Medina Yoro Foulah daal di ñaax mboolem waajur gone yi ngir ñu dimbale dara yi ci rootum ndox xam nañ ne am nañu école yoo xam ne amuñu teen amuñu robinet su ma jëlee dëkk bu mel ni boo ñaango su fekkee bu école Boñango amul robinet amul teen yaakaar naa ne ñàkk ndox warul tax ñu jël école Boñango indi leen norme ndax ñàkk ndox rek déedéet waa Boñango dañoo war a takku organiser wu ne bés bi diw mooy indi ndox beneen bés bi diw wala tel quartier mooy ñooy indi ndox bu ñu ko defee ndox bi bu teewee ci école bi rek danañ mën a jëfandikoo produit yi danañ mën a aar élèves yi. aar jàngalekat yi aar képp kuy dugg école ndax suñu année scolaire mën a réussir. ngir jox gëdd wàllu njàng moomu municipalité bu Ndorna moo jébbal daray tubaab yu seeni gox jumtukaay yi war ngir njàng ak i njàngale mi man fa wéy ni mu waree. nous avons euh, vingt kits et euh, vingt vingt lave-mains qui qui sont déjà là disponibles que vous voyez nous avons trois joxe nañu ñaar fukki raxasukaay loxo mooy yi ngeen di gis nii ñetti junniy masque ñeent fukki carton saabu madaar ñaar fukki carton javel euh, ak ñaar fukki thermoflash ñoo ngi fi tëdd donc gis ngeen ne lépp li nga xam ne moom la ñu soxla ngir njàng ak njàngale mi man fi dooraat door na taxaw na si. a les devants euh, euh, vraiment a pris vraiment de mettre cela waajur yi ngir ñu nangoo bay seen i doom dellu ca lekkool donte liggéey ya ca tool ya mairie bu Ndorna moo baaxee ay waajur ndongo yi jotul woon am ci ceebu nguur gi ay dund pour seen i njaboot. Abdoulaye Diallo ñeneen ñoo xamante nii joxe nañ ay jumtuwaay di cadre unitaire de lislaam ñoo ñooñu nag fas yéene gunge kuréel yi nga xam ne ah, moom moo ëmb ñi nga xam ne ñoom ñoo di ah, imaam yi ngi rek ñu daal di xeex li nga xam ne moom moo di Covid 19 naka noonu itam ay rek njàppandal yoo xamante ni ah, joxe nañu ko ñu teelu Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum moom moomee nag moom moo jiite cadre unitaire de l'islam Mame Biram Diouf ak Amadou Ba ñoo taataan ay kàddoom. ñu indi ay raxasukaay jëmale ko ci jàkk yi jëmale ko ci jumaa yi jëmale ko ci daara yi ndax ay bërëb la yuy dajale ay nit te bu ñu décider dellu siwaat ci jàkk yi wala ci daara yi dina jaadu nit ñi am ay jumtukaay yoo xamante ni dina leen mën a aar ci feebar bi ndax ah dañoo wax ñu dund ak jàngoro ji waaye it dañuy fàggandiku ci jàngoro yi ndox mu bañ a dund ci ñun kon nag dund ak jàngoro bi du tee ñu fàggandiku lii nga xamante ni moom lañuy ñuy docteur yi wax ñu topp ci tabarakallah kon ah, loolu moo ci tey suñu kàddu mu doon cent cinquante raxasukaayu loxo yoo xamante ni eh, yëkkati nañ ko war koo teg ci eh, loxo diggante ñaari kuréelu ay ima yi nga xamante ñoo gën a mag ci réew mi ak ñaari kuréelu daara yi nga xamante ni ñoo gën a mag ci réew mi ñu teg ko ci seen loxo yi njiit boole ceeg la nga xamante ni moo koy yóbbu ba ci seeni ko ak yuuxu wàllu ci rek eh, askan woo xamante ni ñu nga yeewoo ca commune bu Tataguine nekk ca département eh, bu Fatick ñu def lu ni mel nag toll nañ ci juróom benn village yoo xamante ni njort nañ kenn koo xamante ni rek eh, depuis 2016 atum 2016 ba tey mu ngi wéy di leen nax ci li nga xam ne rek moom moo di facture yi bokk na ci rek di ko yëkkati ba tax itam ñu sàkku rek ci nguur bu Sénégal mu dikk ak ñoom ci as ndimbal jébal Aminata Goudiaby bi ci reportage. ab collectif nag la ñu taxawal ne dañoo fas yéene xeex li ñuy woowee ab arnaque ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ci village yi di xonjoñ Ndiosmoon Ngoye Ndofongor Ngoye Seko Mbelongout ak Thiamène di wax ne liñ leen di jaayee courant bi dafa cher trop ñi nga xam ne nag ñoom ñoo leen koy jaay ab sous-traitant wu Sénélec la bu tudd électricité du RIP di EDR. mën nañu comprendre tey ñuy jaayee compteur à 66000 francs pour nga def benn or que boo demee à la Sénélec c' est moins de 5000 francs kooku mooy problème bu njëkk bi le kilowatt ñu ngi ñu koy jaayee à 316 francs or que boo ñëwee Sénélec moom mu ngi jaayee kilowatt bi moins de cent francs loolu aussi beneen problème boo xamante ni vraiment population bi sonn nañ ci trop trop trop trop trop. askan yi yeewoo ci juróom benn village yooyu nag lu ci ëpp ay baykat lañu seen doole bëriwul moo tax nag ñoom ñu jàpp ne day jafe loolu ngir a fay prix yi nga xam ni moom courant bi. y a des yoo xamante tey seen courant day jeex day utiliser jaay seen bëy ñii dañuy dem seen récolte yi dañuy obligé jaay seen récolte yi pour dem jënd courant boo xoolee sax c'est l'informel parce que parfois da demande contrôle nga jël valeur bu 60 000 ñu bind ko ci benn bout papier jël benn cachet boo xamante ne du cachet EDR. ñu de ñu cacheté ko signé la ko jox la ko. ñoom ñi nag jàpp ne ñoom ay victime lañu ba tax na dañuy sàkku ci nguur gi rek mu jël ay matuwaay ci situation bi nga xam ne moom la ñuy dund boobaak léegi def ñeenti at. l'état na ñëw ñu auditer société bi ñu xool ko ñu dugg ci les ménages ñu vérifier les branchements là comment ça se passe dans les ménages xool vraiment gars yi nu ñu koy exploiter parce que ñun li ñu gis daal vraiment c'est du n'importe quoi. ñu ngi e ñoo nekkee entreprise bii di électricité du RIP nañu joxoñ ko baaraam waaye jotuñu leen Aminata Goudiaby cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax ci leneen mbokk yi lu ñeel coowal suuf foofe nga xam ne moom moo di ca Thiamala di ab village woo xamante ni ma nga nekk ca commune bu Sierre ca arrondissement bu Kër Momar Sarr foofee nag askan wa fa yeewoo ba futti la ñu def li xam ne bokk na ci rek ab suuf boo xamante ni njiit bu bokk moomeel gi wala bokk maire ba moom moo leen ko mayoon jamono yi dañoo gis ñu jox genn wàll ga keneen koo xamante ni ab partenaire la ci jiit bu bokk moomeel ga ba tax itam ñu yéexu ak wallu di xam ne rek loole seen ak alal la reportage bu Thierno Fall. askanu màll ay góor jigéen mag ndaw ñoom ñoo daje woon ci seen tool yi ngir fesal seenu naqar ñoom nag li ñuy joytu mooy seen ay tool yu ñu wax ni dañu ko nangoo ci ñoom jox ko ab promoteur privé. suuf bi dañu ko may ci anam yu jaar yoon ñu commencé péridage si boppam di projet boo xam ne bii banque mondiale moo ko financé ànd ak PDIDAS ñëw pour ñu exploite suuf bi suñu maire bi jël suuf bi may ko benn privé privé bu ñu naan Omar Gueye Omar Gueye moom moom moom Petrodis. waa Malla di xamle ni suuf si 2016 la leen ko municipalité bu Sierre dogaloon ñu waroon koo bay àndoon ceeg seen partenaire bii di PDIDAS. PDIDAS def na itam boo war a commencé aménagement bi. maire bi ñëw xama fu mu jëlee partenaire am andi ko nan ngay mën a ñëwee sa population nga xañ leen ndax keneen nit suuf nag ñun mu gudd mu gàtt li xewoon fanaay ak li xewoon mbaan lu ko raw moo nar a xew fii. ñoom nag li ñuy sàkku mooy ñu bàyyi leen ak seen suuf si ndax seen lépp ci leen ko yaakaar. njariñ li si suuf si ndegam Umar Gueye masa àll ba moo ko xam masa ñun ñu fi juddoo yaroo fi. ñun sunu suuf la soxla tey moom la nu soxla suba nanu bàyyeeg sunu suuf ndax sunu doom màgg nañu te dañuy liggéey kenn tukkiwul kenn noor waaniwul sunu àll bii la am. Sénégal dafa am yoon tegu leen si yoon bay jotaat seen suuf dama bëgg nag nu àtte nu lu mu gën a gaaw nu nu leen àtte nu joxaat nu sunu suuf si lu mu gën a gaaw balay njaboot gi di dem di dal seen kaw. askanu la di ay baykat ñoom nag daanaka li ëpp ci seen koom ci suuf lay jóge ñuy bay nawet nag di bay noor comme ni ñu leen fekkee ci seen tool yi ñuy wat gerte gu nga xamee ni rek mi ngi ñoree ci mbayum roose Thierno cant ak ngërëm ñeel na la yow itam jot nga jiit bu bokk moomeel bi naka noonu itam mu indi ay leeral bu baax a baax coowalal suuf loolee nga xam ne ah, ñu ngi koy ah, dégg ca woowuli ah, village naka noonu itam muy xam rek ne lu ni mel joxoon nañ leen ko naam waaye itam mu mel ni rek boobule zone nag du loo xamante nii nag war nañ ko mën a jëfandikoo comme li nga xam ne rek moom moo di seenas suuf ñu dem ca diwaan bu Mbour mu mel ni nag ay sàmba Zimbabwe la ñu teg loxo di ñaari gang yoo xamante ni daal nañu jàpp ci lu tollook juróom-ñett ci ñoom ci ñoom ñooñee nag ñaari xale yu jigéen ñoo nga ca ñoom ñëpp nag di ay sénégalais yoo xamante ni fii ci réew mi lañu ñu rek dëkk naka noonu itam koppar yi nga xam ne jot nañ ko rek al addu kalpe ci askan wi buñ ko xayma daal nay toll ci ñaar fukki million ci suñu ay koppar ci tam ñaar fukki njaboot ak juróom yoo xamante ni ñu nga nekk ca Mbuur Mbour euh, ca Mbour ba tey mu mel ni itam li nga xam ne moom moo di doom bu Cheikh Béthio Thioune di Seydina euh, Saliou ak itam euh, taalibe yu soxna Aida pënd ba wureegul ba tey kenn ci taalibe yooye nag bokk na ci doomam di Ibrahima Ndoye naka noonu itam defeere guñ leen ba tey jamono yi ñu nga ca gendarmerie bu Mbour doom bu njiit bu cantaakun bi nag ñu ngi koy toppee li nga xam ne moom moo di wàllu coup blessure nag volontaire APR ci ki nga xam ne euh, moom moo di vigile bu ñeenteelu soxna euh, nga xam ne moom moo di euh, ñeenteelu soxna bu Cheikh Béthio Thioune ngeen baal ma di soxna Batoor ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yu soxna ayda nag jamono yi liñ leen di toppee bokk na ci rek daal di yàq alalu jàmbur. ñu wax ci leneen mbokki jëwriñ ji nga xam ne moom lañu dénk wàllu càmm gi nag fas yéene jàppale nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw yi nag noonu itam ay koppar yu takk yoo xamante ni daal nañ koy ficc ci ab projet boo xamante ni daal nañ koy lancé li ñu bëgg bokk na ci li nga xam ne rek moom moo di xëyub ndaw ñi dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Moussa Baldé Ousseynou Thiam moom moo taataan ay kàddoom projet bu am solo la dafay ñëw dooleel li gouvernement Macky Sall def depuis 2012 ci mbay mi ñi nga xam ne jox nañu résultat yu am solo mais dañ ko bëgg dooleel yokk suñu production mais surtout mu def ko à travers la jeunesse donc ñu ngi woo jeunesse Sénégal nga am diplôme wala nga bañ a am diplôme nga bëgg a liggéeyal sa réew xamal ni projet bi bëgg na def 150 000 jeunes ñu nekk entrepreneur agricole am liggéey nekk seen propre patron liggéeyal Sénégal liggéey pour suñu souveraineté alimentaire projet boobu cinquante milliards ci cinq ans lañ koy liggéey euh, tàbb nañu coordinateur bi ñu koy félicité di ko ñaan nag moo xam ne projet bi dañ koy suivre président de la république mu ngi koy suivre ñu fexe ba projet bi li ñuy xaar ci moom yëpp ñu am ko Sénégal mbéyam dem kanam mais surtout xale yi ak jigéen yi ñu am liggéey des seen dëkk ba a léegi xalaat affaire immigration clandestine FIDA ak BAD mooy su suñu partenaire ci programme bi donc ñoom ñoo ko financé xam nga ni Sénégal ci boppam du mbay yaakaar adduna bi ci jeunesse la yaakaar loolu moo tax loo gis fii si adduna bi bu dee xale yi dugg ñu ci du am presque doole leneen mbokk yi ca diwaan bu Sikicoor uh, mu mel ni nag askan wa fa yeewoo ñenn ci ñoom nag ñoom ñoo daal di gis ab ndel woo xamante ni ñu ngi ko nemmeekoo ca benn carrière woo xamante ni ma nga nekk ca Mandina Mankaañ nag di ab village boo xamante ni uh, jege na lool commune bu Sikicoor nag noonu itam ci rek lañ daal di yëglu ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi ngir rek ñu daal di uh, indi ay saafara ci mbir mu ni mel coowal ndel lool nag mu mel ni ab ONG humanité ak itam inclusion ex handicap ñoom ñooñu nag nga ex handicap international ngeen baal ma ñoom ñi tam ñuy saytu mbir mu ni mel naka noonu itam ñu xam ne rek ne bi mbas mi duggee ci réew mi ba tey mu mel ni ay jafe-jafe lañu am ngir rek daal di saytu wàllu wu ni mel duñ ci sori dañuy teewlu reportage bu ma Biram Diouf. ONG bi nag bàyyeekuwul ci liggéey nga xam ko doon amal boobu léegi ñeel kon jëlee ndel yi maam nag ab plaidoyer goo xam mu ngi koy def jëmale ko ci partenaires yi ngir liggéey googee kat ñu weel ko foofee ci ba saalum réew mi. suñu financement dafa dem ba jeex ak Covid bi di ñëw tamit donc euh, donc ci espace ba lañ la ñu yemoon en attendant ñu mën a am d' autres moyens de relance. WRA donc euh, département de la américain de la défense donc euh, moo ñu doon accompagner c' est le principal bailleur de fonds. ak yenn ndel yi nga xam ni kon jot naa éclaté ci fan yi ñu génn foofee ca Casamance. tax kon ba muy taxawit di wax rek laaj na kon ñu jël mbooleem paramètres yi nga xam ni kat mooy tax ñu wéyal liggéey bi te karange doon lu fay del si sax fa. dañu jàpp ne dellu soit ci dëkk bi dafa xaw a gaawantu daf ci am voilà parce que pour nga jël nit delluwaat ko ci secteur boo xamante ne xamoo ndax am na miin wala amul mine te événement yi mujjee wane nañ ne euh, am na ay mine potentiel mine. donc euh, pour ñun euh, dafa am liggéey bu ñu war a def d'abord. pour def enquête déjà pour xool est-ce que zone yooyu am na miin wala amul miin bu amee miin ñu déminer ko def éducation au risque jàngal nit ñi naka la ñuy moytoo miin bu fekkee amul miin ñu ne amul miin nit ñi dellu mais jël leen nii rek euh, bëgg leen dellu foofu aussi am na ay risques yu énorme yu xamante ne population yi euh, mën na leen ko jàkkanteel foofu noonu ci ci site 2018 euh, defoon nañu dialogue national anti mine pour xool est-ce que objectif bu ñu waroon a atteindre 2021 dañ ko mën a atteindre ou pas ce qui est que objectif dañ ko mën a atteindre on n'a de on n'a pas de ressources financières euh, adéquates on n'a pas pour pour nous permettre ñu reprendre euh, déminage bi ca déminage ba ca Casamance doon liggéey gu ñu war a wéyal mbooleem acteurs yi nga xam ni nag fu mu toll ñu ngi dugal seen loxo rawatina ci jàmmu del si foofee ca bër Saalum réew ma ku ci nekk kon am taxawaay goo xam ne ni ñu ko ci xaar ngir liggéey boobee kat mun ko matal. liggéey boobee mën ko matal Biram Diouf cant ak ngërëm ñeena la mbokk yi dañuy jukki weneen a ponk ci la jotaayu xibaar li ci yéen kaay yi lay doon ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf école bi ñu bëgg a tijji yéene kay boo tijji fekk fa xibaar ba journal las xëy ko tuddee plan ngir sauver njàngum ren mi élèves yi war a def examen ñaar fukki fan ak juróom ci weeru suwe ca dañu war a ubbi yeneen élèves yu tollagul ci def examen ñoom seenub l'école doxe na fi tëj Mamadou Talla ministre éducation nationale yéene kay bi mi ngi ñuy xamal ab tournée bu mu war a tàmbali ngir waajal ubbi teg école gi dana dem ca Ziguinchor dem bi bëgg ubbi école yi alxames jii ci Birame Diop ministre formation professionnelle wax na fi mu fas yéenee jaar bu ubbi école yi ngir gone yi waajal examen dem jàngi ci lu àndut ak benn ñol-ñol soleil national moom it xëy ñoqali ci wax ji ba dañuy wax ne ay coppite mu di réaménagement la ñu indi ci calendrier scolaire bi examen certificat ñaar fukki fan ci weeru août ca la ko jàpp examen BFEM yeeg yu baccalauréat ñu jàpp leen ci weeru sàttumbar journal Sud Quotidien moom amee xel demee bay waaja tijji te tijjiwul na amaat sa ni am nay syndicat jàngalekat yu tàmbale yëglu ak kuréel gu ci mel ne collectif des gouvernants scolaires ñoom li ñu gis moo di gouvernement bi dafa bëgg a patam patamee yëf yi mbirum taf yëngal la ko bëgg a def ndax li ñu naan protocole sanitaire respecté wuñu ko ci mbir yi te it bàyyi wuñu xel nawet bi te daanaka dugg si na ba tàmbale indi jafe-jafe ci diiwaan yu ci mel ne Kolda ne foofee abri provisoire ñu fa defaloon élèves ya nawet ba sàkkal na ko pexe yàq na ko lu ko tëjee moom kay dafa neexut a dégg rek ay risque am na ca ni ñuy séq njàngale njàngale mi du ñëm ñëpp ñëw fit ak li protocole sanitaire bi santaane du ko si def ni ñu ci li ko toxoon di dañ dañi moo di seet nu mu mën def ba weeru soin gi bañ koo rëcc L'Observateur nañu loolee lépp bu jàllee leneen coow am na ca coow li moo di ñi seeni doom nekk ci école privée yi te war a def examen dafa am ci ñoom ñoo xam ne borom école privée yi dañu ne leen balaa genn gone dugg ci classe yi il faut dañuy fay weeru mars gi weesu fay weeru avril gi weesu fay weeru mai loolee nag la yenn parents d'élèves yi ne mukk xel xalaatul ñuy fay lu seeni doom jàngul Bakary Badiane bokk ci kuréel gëmb parents d'élèves ci réew mi nii ci l'observateur école privée yooyee di laajub xaalis bu ñu bëggee leen fay nañu ko laaji état bi état boobee njiitam di Macky Sall mi ngi waaxu waaxu mu rëy boole ko dëgg tànk yu dëgër ci xët mu njukk enquête yi ñaxtu yeeg xultu yeeg njàmbat yi am ci réew mi mu di ci politique bi di ci social bi ba nekk ci moo waral moom président Macky moom rek kay jàmmaarloog coow li di ko ñàkkantee gaay yi wéet gu mu wéet tax na lu dikk rek daal ci kawam ci kaw taxawaay bi gouvernement bi amee ci xeexum coronavirus bi Maurice Soudieck Dione di docteur ci wàllu science politique ne waa enquête dina weñ gaa nga bañ a ca mbànjaxaan ga yëf yi dañu cee teel a dugal politique moo tax it baa ngi ne ci lëjj jëwriñ gi ñu dénk wàllu santé ci réew mi di Abdoulaye Diouf Sarr xëy A A assemblée nationale mook Mansour Faye ngir ñu leeral ci wax joojee ci la Abdoulaye Diouf Sarr njëkk a nee na Aïda Mbodj acteur politique la bu ñu jox cër ci réew mi li mu def wareefam la en tant que te man Diouf gisuma ci dara lu ay aw yoon may ngir ñu mën a dem fa lépp leere di ci assemblée nationale ngir leeral fa suñu taxawaay ci coronavirus bi bi libération nee nañu fa mu tegoon tànkam ba léegi teggiwu ko mi ngi wéy di jël ay bakkan ci réew mi ndax démb coronavirus gi raayagum ci Sénégal te ci ñoom fukk yaa juróom-benn ya journal li be nee nañu ci ñeenti fan yi ñu weesu ca la faatu Le Quotidien nañu ca Fatick am na fa juróomi élève gendarme yu fa corona Vox Populi ngi tolloon ci juróom-ñaar fukki ñu yóbbu woon ko ca centre de ba ca dëkk ba doon ko fa faj ay mbokkam dem jëli ko génne ko l'hôpital yóbbu ko këram ca kër ga fa faatoo faatu faatu yekk moodu moodu ya ci bitim réew l'Observateur Ziguinchor moo def ab gëstu bu wane ne téeméeri moodu moodu yoo jël juróom-ñett yi ab diire ngi yónnewuñu dëkk ba ndax amuñu lu ñu yónnee te lépp corona bi la. lépp corona bi la Mamadou Mohamed Ndiaye cant ngërëm ñenn la mbokk yi foofee la ñuy jaar daal di buur yi la jotaayu xibaar dig daje ngoon lay doon bu 19h30 jotee daañu fi teewaat ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc 20h itam naka noonu ci kàllaamay tubaab lu mooy loole ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fii ci télévision Futurs Médias jërë